déggagul woon euh, boobu ba léegi malade yi di wax si hôpital dañ daan dégg syndicat yi di wax ñeneen di wax même patient yi mosuñu àtt bis na nga tey fii ci Ndar parce que patient yi dañuy fas yéen àtt ñu teew fi man du Diop di président association des diabétiques de Saint-Louis taxaw fii ak waa association bi taxaw fi aussi président association des hémodialysés euh, di wax suñu métti si Ndar benn bi euh, si jiitu mooy fii si hôpital de association des diabétiques dañ fi am benn bureau IEC information éducation et communication des diabétiques pour xeex ak diabète bi ni mu toll ci Ndar directeur bi te kooku li tax ñu am ko coopération donnant donnant bu ñu jox 20 millions hôpital pour mu yombalal diabète bi directeur bi ñëw tey tëj ko ci coobareem te li ñu bind ci convention bi mooy daf ñuy waroon notifier te coopération boobu jël na en di 770 diabétiques yoo xam ne seen doole joxul jotul seen du gannaaw seen loxo ba tax na bu si ministre bi àdduwul ñu ñëpp seen dund nar na naxasaay parce que mënuñu woon fay fay bu mat looloo tax partenaires yooyu joxe si hôpital bi alal pour que hôpital bi wàññil diabétique yooyu loolu di suñu métti euh, li ñuy ñaan nag moo di ndar amul hôpital daanaka malade yëpp ñu leen fi jëlee di yóbbu Louga feneen ak feneen te ñëpp amuñu doole yu pour seen malade en dehors de seen évacuation yi bare li nga waral une mauvaise gestion li Khalifa Sall wax bëgg dém du waxu Abbas Ndao kese jël xaalis dugal ci hôpital yi ñoom ñu jël ko séddoo ko ci ay indemnité ak ay prime te malade yi ñoo koy subir bu ñu ko séddoo ba taxawaat di grève bu ñu grévé kookoo di dañoo jël en otage malade yi souffrance su malade yi la jël ko brandir pour que ñu ñëw inte li koy dakkal mooy ne directeur de l'hôpital lañu bëgg mu jóge fi directeur bi c'est un danger pour les diabétiques oui. c'est le, c'est un danger pour les hémodialysés oui. le président en parler tout suite et vous allez écouter ce qu'il va en deux mois le nombre d'hémodialysés qu'ils ont perdu